وسهادك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون barke Cheikh Khadim noo ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di ziyaare safar suba bis bi nga xam ni ci lañu mucc ci sawara bis bi nga xam ni ci lañu mucc ci nax-naxi adduna ak nax-naxi àllaaxira bis bi nga xam ni ci lañu mucc ci nasraan muy bis bi nga xam ni ci la sëñ Tuubaa génnoon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te waxoon ni xarajtu yawma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fi shahri safar demam kooku nga xam ni koy def benn tukki bu mel ni moom ñu tukki yàlla mosu koo def demam googu nga xam ni bi mu koy def ak ñu tëdd tukki yàlla ci at moom ku tukki tukki bu mel demam googu nga xam ni bi mu ko tukkee ba fii nuy waxtaane ci Capa TV bi mosuñoo gis kenn ku mas a jàngale ci ab téere ku mas dem dem gu mel nii Sëñ Tuubaa demal li tax ak demam wuuteeg dem mësta dem li tax ak demam kenn mësta dem dem gu ni mel mooy wépp wàlliwu yàlla bu mës a jóg ngir tukkil yàlla tukki boobu danga koo xool ci zahir ak ci baatin xam ni tukki bi ak jaamu yàlla ngi ci nga ciy wut ngërëmul yàlla ñoom ñépp nag am nañ ko ci waaye sëriñ bi nag li tax mu wuute tukki gaa yu baax yi mooy tukkib sëriñ Tuubaa bii yàlla mi nga xam ne moom la ñuy tukkil di ci wut jaamu di tiwul ngërëmam moom moo waajaloon ca ësal ngeen mun ñëwee àdduna sëñ Tuubaa tukki sëñ Tuubaa daa wax ni tukki bi bi ko yàlla di programme bindagul aadama bindagul awa bi bi di programme bindagul asamaan bindagul suuf tukki bi bi ko sëñ Tuubaa di nettali ne bi ko suñ borom di programme ca ësal la ndax moo wax mag ñi ne leen وسبب خيبة البعيدة أن الله أراد في الأزل أن أكون شفيعا لجميع تلاميذتي وحال بيني وبين النصارى وأدخل الإله في قلوبهم الخوف وفعلوا ما فعلوه لألا أكون متنصرا لأنني لو تتنصرت لدخل النار والعياذ بي Sëñ Tuubaa nee na sama tukki bu sori bii laa leen bëgg juróom ñaari at ak juróom ñaari weer daj fa ay fitna ak metti ak jafé jafe yu yag liko sabab ba tax ma dem loolu la leen bëgg jàngal ñu ne ko lan moko sabab mo ne yalla sun borom mi nga xam ne tëlewul dara lepp la man mo nam moon ca azal, ëzël nak borom xam-xam yi nee moy lu jitu yalla yi bind aduna te serigne bi dañe arada fi ëzël mooy yalla mo nam moon ca ëzël fala na lu jitu muy bind ca la yàlla na mewoon an akuna shafian li jamii talamisati mooy bu ñëwee adduna mu jox ma laissez-passer boo xam ne ëllëg dama koy mën a présenter fa kanamam loolu man maa permettre ma mën a ramu mboolem sama xeet loolu yàlla da koo bëggoon te ba mu koy bëgg ca ëzël la ko nammee woon ñu doog a ñëw adduna waaye yàlla it moo namoon ca ëzël ma doon xaadimu rasul mboolem ñuy liggéey rasulillahi ñëpp ma jiitu waaye yàlla it moo namoon ca ëzël ma doon ki nga xam ni sama daraja day féete kaw daraja ju dul sama daraja nee na ñetti daraja yii la yàlla na moon ca azal lu jiitu muy bind àdduna loolu nag bi mu amee yàlla day jëmm yoo xam ni su bëggee amal dara da koy wutal ay asbab mooy ay sabab mooy ay fee yàlla su bëggee amal dara yoo xam ni ci la koy amale mooy li naan wax isa aradallahu amran hayya lahu asbab mooy yàlla su bëggee amal dara da koy wutal sabab yoo xam ni ci lay amale loolu amale ngir jox seigne touba makama yu ak daraja yoy moy wahala bay wa bayna nasara moy li madon ma doon ki nga xam ne damay ram ma sama xeet bëgg ma doon khadim rasul bëgg sama daraja fa wax naya kurul man nee na ko bëggé sa bi ko wutal moy dafa fexé ba ruuxale sama digënté ak touba moy mooy waxaale wa bayna nasara dafa fexé ba doxale sama digënté ak touba yi nga xamni mënu ñoo ñak am jafé mënu ñoo ñak baña Euh, jëflante ndekete ci jëflante googu ci la yàlla bëgg teg tànkam ba jox ma ñetti daraja yi nga xam ni maa koy dëkk am maa koy mujj ndax bu fekkoon ni ci zahir rek sëñ Tuubaa war naa mën a dund ci àdduna ba làqu ci suñuy bët te doo am jafe-jafe ak tubaab bi bu doon tamit lu logique rek tubaab bi war naa mën a dund ci àdduna ba faatu te doo am jafe-jafe ak sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa li mu bëgg muy yàlla ak yonent bi ak alquran ak lislaam ak xeet li bindee fi loolu ñurul tubaab bi yoonu tubaab bi nekk ci tubaab bi li mu bëgg muy adduna ak alal ak ba ak ak i jaam yooyu yëpp ñurul sëñ tubaa kon sëñ tubaa li muy dund à part la tubaab bi li muy dund à part la ñaar ñooñu nag kon waroon nañoo mën a ba kenn ku ci nekk dem fa nga bëgg dem te waruñu mën a jafe mënu waruñoo mën a am benn jafe-jafe waaye suñu borom nag moom la dara tëwul saa su bëggee amal dara da koy wutal sabab yoo xam ni ci lay amee loolu moo tax moo ruuxale diggante tubaab bi ak sëriñ bi waaye sëñ Tuubaa nee nag bi mu ruuxalee sama diggante ak moom ba noppi nag wa adxilal illaahu fii quluubihimul xawf daa def ci seen xol yi ñoom tubaab bi ñu ragal li tax nañ ñu ragal sëriñ bi sëriñ bi yor ci ngànnaay sëriñ bi yor ci fetal sëriñ bi yor ci jaasi sëriñ bi yorul arme kon lu tax tubaab yi ragal sëñ Tuubaa ba bëgg a gëstu ay mbiram ba xam lan moo waral sëñ Tuubaa mii am kii du toll ni buñ ko wooyee ñu dellu si nee na loolu lépp ragal googee suñ borom moo ko def ci seen xol yi cet doy nag it dañuy wàllu zahir si nga xam ni ginnaaw ba dogal ba amee ci ba noppi ñoom la yàlla indi ci zahir ngir ñu jaxase diggante sëñ Tuubaa tubaab bi cet dañoo waxoon tubaab yi leen ñun ñuy seen bët yi nga xam ne ñoo leen di xoolal sëriñ si nekk ci réew mi képp koo xam ni mi ngi wàcc ngir dal ci seen kaw yéen tubaab yi dinañ leen teel a signalé leen maaraam bu sàngam mi ngi wàcc seen kaw la jëm si bu ko defee ngeen waaj ngir mën koo teelu nag bala moo am dara ci ay doole wala muy am dara ci mbooloo léegi nag ceddo yi bi ñu demee ba jàpp ni ñoom pal gii nu am te tubaab jox leen ko sëñ tubaa tàmbalee siiw ñu bari ci ceddo yi di jógee ci ceddo gi di jébbalu ci sëriñ bi bi di leen indi ci yàlla di leen sikkarloo di leen tuddloo yàlla di leen yéege ci ay maqam ak i daraja ñu bari di màbbe ci ceddo gi di ñëw ci ñoom ñu jàpp ni lii nag bu continuer ñoom mbooloo mi am ñoom ceddo ji yëpp gën a mujj dem ci sëriñ bi te bu boobaa seen pal gi ñu amee sax suñ tubaab mën na koo nangu moo tax ñu ne kon nag faaw ñu jéem a jaxase sëriñ bi ak tubaab bi tubaab bi jàpp ko bu ko defee ñun suñu pal mën a continuer suñu doom yi jógee ci ñun di dem jéblu ci moom it loolu lépp mën a dakk benn suñu soxla ci gis mooy ñu jaxase ko tubaab ko ko bu ko bëgg am lépp muy lewet ñu mën ko am waaye ceddo yi bi ñuy wax loolu tubaab bi dañ leen a wax ni ko dañ leen a wax tubaab yi ni leen Ahmadou Bamba kat kenn la ci sëriñ si nga xam ni egg na fa mbooleem sëriñ sa ko jiitu woon eggoon te sëriñ su man àggee foofu dañoo fetal jihaar mooy dañoo dajale ay taalibe dal ci ko tubaab kenn doy nag ni tubaab bi moom mi àgg na foo xam ni sëriñ sa àgguñu fa woon am na ci mbooloo loo xam ni sëriñ si amuñu ko woon te mbooloo mi gëm nañ ko gëmin woo xam ni sëriñ sa jiitu woon seen mbooloo gëmewuñ leen woon noonu ndax moom mbooloo mi mu àndal gëm nañ ko gëm gu toll bu ne woon leen xuus leen ci géej gii te xamuñu sax ni ñuy mujj ñoom ñëpp kenn du ci teg baat ñoom ñëpp dañuy maasi xuus ci géej gi te mi ngi dajale ngànnaay mi ngi dajale taalibe yi mi ngi woote ay réunion mi ngi woote ay waxtaan mi ngi lal ay plan te plan yooyu yëpp ci sa kaw la jëm si waxtu wu nekk ñuy saxal loolu ci nopp tubaab bi te booba tubaab bi mës a gis sëñ bi sëñ bi mës a gis tubaab nit nag bu nee la maa lay xoolal li war a dal ci sa kaw ma wan ko nga teer koo fagaru bu nee la diw sàngam waxtu wu nekk ci yow lay dox ci yow wax ci sa kaw la si bu yàggee faaw nga jéem a gëstu ba xam diw nga mii li ñuy wax ci moom dëgg la wala du dëgg tubaab bi nag ci gëstu gi muy gëstu ndax tubaab bi dafa yew bi coono tàmbalee bari da ne kon naa ko woolu mu ñëw ma déglu ko ba xam li ñuy wax ci moom dëgg la wala du dëgg ceddo yi nag bi ñuy wax tubaab bi dañ ko waxoon ni ko moom dëgër na dëgër bopp boo xam ni respecté wu leen bu ngeen ko woowee sax du ñëw mbaa bu ngeen ko woon ba mu ñëw sax bu ngeen di wax du leen fay tubaab yi nag jàpp lool di bind ab leetar yónnee ko ngir sëriñ bi wuy si lettre bu ñëw rek comme programme programme bi yàlla la Sëriñ Tuubaa du wuy ji mukk lu dul ndigalul yàlla ndax programme bi yàlla ko namoon ci azal scénario la boo xam ni suñ borom moo ko rëdd nii la war a tàmbalee nii la war a jaar fii la war a jeex sëriñ bi moom acteur kon du wuy ji mukk lu dul yàlla naan ko bi sàngam baax na waxtu sàngam baax na moo tax lettre bu ñëw rek sëñ bi ni xotti leen amaguma ndigalul dem am la si musaaka naan dellu ni du ma wuy ji mukk abada te ooma ndigalul yàlla ak muhammad tubaab yi nag jàpp ni ñàkk ñëw gi sëñ tubaa ñàkk wuy si kon la ceddo yi doon wax dëgg la te fekk booba la ceddo yi wax du dëgg waaye sëñ tubaa ak ñàkk wuy si du lum jàppal tubaab yi ci xolam waaye ñàkk am ndigalul yàlla rek moo ko te wuy tubaab yi ah amul jaaxle ci lan moo tax kun masawoo ci àdduna bu lettre bi agsee 10 heures 10 heures 10 fekk la fi moom boobu ba léegi ñu di ko woote nu nguuta ñëw kon li ceeb day wax dëgg la ñu ni kon faw dañuy yabal ab arme ngir ginnaaw nu nguuta ñëw ñu jëli ko këram indi ko ci doole mu ñëw fii ci sunu kanam leeral li tax biñ ko woowee ba léegi ñëwul ak liñ koy tuumaal lan la ci doon ñu dajale lekk-lekk bi nga xam ni moo nekkoon commandant wu Louga te doonoon goro ci boroom ndar ñu jox ko ndigal ngir mu jël si sëriñ bi nag ci Mbàkke Bari Jolof bi ñuy tàmbali di waaj ngir jël si ko sëriñ bi it tamit ni ñu ngi koy jël si Mbàkke Bari Jolof laata ñuy déparé foofa fekk sëriñ bi am ndigal lu jóge ci yàlla ngir wuy ji mu lal di yabal nag maam Cerno ca Ndar ni ko boo demee nee leen jërul ñu yàq seen tur di yàq seen alal nii lañ ma jël si fii ci Mbàkke Bari Jolof ku leen war a xamal xamal leen ku leen war a xamal xamal leen te man maa ngi waat ci yàlla ni fii ci Mbàkke Bari Jolof moom aw ay amu fi jàmm rek fa ah waaye ndagate ki sëriñ Serigne Mame Thierno ngeen mu jottali ay waxam ci cot day ruuxali Serigne tubaab tubaab bi la bokk bu Mame Thierno waxee ba noppi rek moom day dëngal wax ci xool fi mu na juróoy wax tubaab bi ni ni lii la Mame Thierno wax waaye Mame Thierno nee na bu ma xoolee kan ma bi rek yéege naa ci kanamam ni limay wax ak li ki di jot li du ndax man waxaguma fi lu waral tubab bi kanamam mo wara ñëgg ni man ci nee na ma daan ne ndax man na wut ko ma jottali sama wax ku dul ki ñaan ñu ne ko waaw loolu de am nga ci droit man ci nee ma dugg ci dëkk bi waxu ni wax señ Baran Jaw bay Baran Jaw ñëw jottali ma wax ci bi waxe ba noppi rek bay Baran Jaw wax gis na ci kanamu tubab bi ni mi ngi tambali leer neena tubab bi ci wax bay Baran Jaw ni ko neel kii ki ñëkkoon doon wax waxul lii li kii di wax waaye nag ginnaaw nii la demee nee ko na dem du jar sax may yabal ñu ko jël si waaye na dem wax magam ni ko na daal di ñëw wuyu ma suba ci diise mam ceer nag daal di dogu ngir yàkkamtee ak Mbàkke Bari Jolof ngir nett li loolu sëriñ bi bi mu agsee Mbàkke Bari Jolof mam Cerno fekk na sëriñ bi jullee ci jàkk ji ba génn waaxu wuti kër gi waaye daal da nga kër gi rek daal ni laa suñ borom aramal na ci sama jëm ji mu duggal ci kër dal dina ma bagage yépp fekk fi mam Thierno nee na bi mu tàmbalee li nante ni sëñ Tuubaa dani ko Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko dara mëtumaa wax janj ba nga taxawon pël ba dina la tegtal xorondoom yoon dox seen digi tanki yi maa mu jël seen ma fas sama digënté tuba bi tilim na tilim go xamni da laaj saabu bu bari ndox ndox mu bari lool foot kat bu am doole moy sama digënté tuba bi yaquna na daal di yëkkati ab tànkam ni bismillahi daal di war ci fasam bu tedd wooy nga xam ne awdullahi lañ ko tudde waaye sëñ Tuubaa nee na bi ma nee bismillahi ci kaw fas nee na la arme bi yàlla bépp war ànd ak man rafiqi kitabullahi wal wa asaabuhu fil bahri hina na damaa war rek ahlu yëpp escorté ma ma ànd ak ñoom dugg ci biir bi te tubaab yi xamuñu ni ahlu badri yi doon escorté rasulullahi ñoom laa àndal ngir ñu escorté ma ci sama tukki bi sëriñ bi nag daal di déparé foofu ci Mbàkke Bari Jolof loolu la bisub samedi 10 août 1895 ñëw jeewal fanaan ba xëy suba déparé foofu ci jeewal yenn ci kokki nekk kokki ba ñu liggéey déparé kokki wuti Louga Louga la Sëñ Tuubaa jële saxaar jëm si Ndar ci biir saxaar gi la Sëñ Tuubaa tàmbalee taalif xasida goo xam ne mooy ala innani usni ala xayri mun'imin wala astaki lil xalqi min faqdi anhum waaye ci biir xasida googu da cee wax waxin wu doy waar mooy maakisan bil kitaabi maska darini bi yabdi qaidil jàpp ci alxuraan jàpp fu dëgër ba mel ni gumba gi jàpp ci loxo ki bi ma jógee fii nga xam ni moom moo di Louga wuti waaye bi mu agsee ndar un mois dix jours la sëñ Touba am ndar weer ak fukki fan sëñ Touba am na ko ndar tubaab yi di seen ñetti mbir ci moom yenn tubaab yi ni nañ ko rey éliminer ko physiquement ay mbiram yenn yenn tubaab yi gisee ni non nañ ko tëj fii ci ndar à yenn tubaab yi gisee ni déedéet nañ ko exiler génne ko dëkk mu doon ñetti mbir yoo xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay noonam moom lañ doon seet ci moom sëñ Tuubaa nee na ñett yooyu ñu doon seet ci rasulullahi ay noonam man mii samay noon moom lañ doon seet ci man waaye bin xalaatee ñetti xalaat yi ba dellu si waat daan ni ray ko physiquement moom lu yoon parce que liñ koy tuumaal xamaguñ dëgg la wala dëgg kon mënuñu koo ray physiquement ñu ne it tëj ko fii ci ndar li ko mënta nekk mooy nit ñi gëm nañ ko gëm goo xam ne boo ko tëjee ci ndar ndar day mujj xat-xat goo xam ne ndax xam ngeen nii sëñ bi jaar na ci gabon montagne set ñu yew ko ci ak garab jël fukki officier ak ñet yo xamni ay tire de lune ñu dàq tire ci nasaran si tek seigne touba ci ak garab ci bisu plat fukki officier ak ñet yoy kenn ku nekk ñu jox la fetal nga am fo dir ci jëmmi sëriñ nga xam dañuy tambalé ci 5 4 3 2 1 bu ne 0 ñëpp tek seeni fetal Sëñ Tuubaa nee na biñ ne ba àgg ci zéro biñ téqee seen fetal kenn ku ci nekk fi ma diiroon ngir jàmm fa nee na foofu la sa bal dal nga daanoo njaaxaane wahabalil wahaabu fii sulaasa maa yuxjilul asrata wa sulaasa wa sulaasa ci bisu talaata la ma yàlla gàcceelale fukki office ak ñett yi jógoon ngir lool waaye xam ngeen ni ci làmbar lañ ko gas ci neuf mètres cinquante mër-mëral ko ni ko bërëb bu neex a jullee ngi nii sëñ Tuubaa ñëw teg ñaari tànk yi mëbëx mu metti lool nee na foofa ko fa fekk jox ko loxo téye ko yëkkati ko nee na mooy soxna jaar moo bindal boppam ne raddama rabbi maa udwi xafar li darari wa zanani aman kafar loolu dund na ko it ci làmbar waaye loolu lépp li muy metti metti amul fenn fu sëñ Tuubaa waxee ni saa yu ma fàttalikoo loola damay bëgg jël ay ngànnaay dal ci kaw tubaab benn dëkk ci tukki bi muy Dakar iza zakartu dalika al mabita wa dalika al amira nee na guddi ma fanaan Dakar ñaari nekk ñaari fan yi ñaari guddi Dakar yooyu saa yu ma ko fàttalikoo damay bëgg jël ay ngànnaay ndaw dal ci kaw tubaab bi ngir métti moom waaye nee na rasulullah mu naan ma bàyyi noonu rek li la yàlla dencal ëpp loola xam nga sëriñ bi bi muy dugg ci bi muy jóge Ndar ñu koy dugal ci néeg bi ci Dakar koor la indaal te dañ koo taxawal suñ Tuubaa daa taxawee Ndar ba Ndakaaru bi mu ànd ak kooram waxtu timis la sëñ bi ex Ndakaaru tàmbali ngir dog kooram ak julli timis ci lu bette tubaab bi ne ko kaay dañ la soxla lii ma la wax boo demee ci Cheikh Mamadou Lamine Diouf da nga na ci daal ndim moo ko nett lu bette rek tubaab bi ne ko dañ la soxla sëriñ bi waaxu ànd ak benn tubaab ndekete boobu ñu ngi koy dugal ci néegum Dakar bii nga xam ni la mën lu nee na fu mu ko fàttalikoo rek day bëgg a jël ay taalibe ngir dal ci kaw tubaab bi mu dikkee maa dégg ci sëñ Abdourahmane mi sëñ Abdou Khoudous nee na ñu dikkee ba ci bunt bi néeg bi dañ cee def ay rab coin yi dañ cee def ay rab nee na bi mu ba ci bunt bi tubaab bi daa xëcc ci kol gi sëñ bi muuroo woon rek ñaari kaamil wadde ci bopp bi ñu bëma ko ci biir nee na alir bi sëñ Tuubaa duggee ci néeg bi moo tax rab bi ngeen njëkk ko jot bi mu ko jamee daa sar ba génn ci dàll wi sar ba génn ci tànk waaye nee na wa bittu oxyi laylati bi sahra wayni albaqara wa ali imran fa manaatani fa manaatani min al aarini wa naari na tuxul nag ma saali ndax ñaari saar yi gën a gudd ci alxuraan laa dund na guddi googu ci néeg muy baqara ak ali imran baqara 285 aay la ali imran 200 aay nee na dama koo jàng ba mu jeex ma teg yu julli ci yonent bi yàlla musale ma ci néegum ndakaaru gàcce adduna gàcce alax waaye Moussa Ka nee na fii laylatul jumaati lañ ko tàmbal ci néeg bu lëndëm noonu naa ko làmbal mu làmb daj ay gobar ak i ko foofu dem mu des faak di jublu xibla daal mën la su jur ngir tartar jàng ko waqar ak saaru imran jibril ci néeg bi am na fa yaari guddi lekkul naan lulu ca leer yàlla kooku neenu nee na keroog gis na fa sun jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee na keroog gis ko loolu dii su ko xam bi lay ku weddi lii laajal moo tax ñun waa Ndakaaru màggal bi ñoo ci war a ñun waa Ndakaar ñoo gën a war a jël engagement ci ci màggal gi ñun waa ñoo war a gën a sonn ci màggal gi ñun waa Ndakaar ñoo war a gën a jox yitte màggal gi ngir mbooleem dëkk yi Sëñ Tuubaa tudd yëpp te daj ay fitna waxul ni li ma fa daj mett na metti koo xam ne su ma ko xalaatee jël ay ngànnaay ngir dal ci kaw tubaab bi benn dëkk rek la ko Sëñ Tuubaa waxee muy Ndakaar kon Ndakaar nañ am ñoo ngi seere mbooleem ñu doon topp jataay bi di ñaanal borom télé bi sëñ Youssou Niang directeur général bi nga xam ne mooy directeur Capa TV mhm. yàlla gën a yokk ay mbiram yokk ay xéewalam yokk ay suturaam mhm. li mu bëgg ci liggéeyal sëñ tubaa ak dina yàlla moo mottali ko noo ngi siyaare mbooleem waa Yaraax di mhm. ñaan yàlla yàlla defal nu màggalu jàmm te defal nu ay ndam defal nuy xéewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala